yalla mi yobbu hatam daaw yalla mi yobbu hatam daaw indi hatam ren indi hatam ren ni ak li leen di jaaxal yépp ak li leen hatam ren ni di jaaxal lépp yalla na ko def muy hat ma gën ci hat yi yalla ko yalla def muy hat mi gën ci mbolam hat ya rabbi yalla baal ñi ñun ñep yalla ñu yalla baal ñun ñep baal suñu wajur ñun ñep baal suñu wajur ñun ñep baal suñu mbokk yep baal suñu mbokk ñun ñep baal suñu xarit baal suñuy xarit. ak suñuy taalibe. ak suñuy taalibe. ak képp ku ñu dénk ñaan. ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi. képp ku am ak ñun coloré. ak ko am ak ñun kóllëre ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi yal na ñu yàlla boole ci jaam yem sopp yal na ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp ñam nangul ñam nangul yal na ñu yàlla jubal yal na ñu ci lam bëgg ak lam gërëm xéer ñu ca lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yàlla ñu yàlla may gëm yàlla gu mat yàlla nañu yàlla may gëm yàlla gu mat taxee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxal ñu ci topp yàlla gu mat gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nangul ñu ko te nangul ñu ko yaa rabbi te faat ñu ci bés ba gën ci suñuy bés te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés gëdëm ñu gërëm ñu yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ya yóbbu ñu aljanna ci kër soppeem ga ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi ñu dëkkaale Muhammad sallallahu alayhi wa ak yonent ak saaba boole ñu ci soppe yàlla yi ci soppe yàlla nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox loola Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. hire hali dubu idan ka ji ana studio a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba kace ce hali dubu to kalamu wahid magana ta kare wannan shine babban studio wanda idan fim ɗinka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo hali dubu ba to an sha ka an tafi ni sha girgir bau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan shambale ko sha shago ko sha ta ko shanu kai duk sunan da ya fara ni ne inda ina fara da sha amma ban da ka zo ka bi mu ka ce ina ne hali dubu za ka ji an ce maka sai ka shiga play store sai ka ɗauko manhajar hali dubu hausa t ko kuma hali dubu films ko kuma hali dubu bus office kar ka sake a baka labari Allah isa wannan guri namu Allah ya kara maɗaukaka ɗaukaka I love